bii ñëwee ba nga xam ne suñu maam yu mujj yi nga xam ne ñoo mujj a ñëw euh, gis nañu xare yoo xam ne kom euh, ñi nga xam ne ku mel ne que Cheikh Amadou Ba euh, ginnaaw El Hadj Oumar Fouti gis nañu Cheikh Ahmedou Ba ñëw fii moom itam xeex ak ceddo yi waaye xeex ak tubaab yi digganteem ak ceddo yi nangu woon na lu bari ci Kajoor ba ñoom ñu daw làqatu ci tubaab yi Aliou Fa ak ñoom ñu nangu mu nangu Jolof ba nekkoon buur ba Jolof loolu moo waral xeexu Samba Sadio parce que boobu Albury ak ñoom euh, Lat Joor euh, tubaab bi euh, tukulóor bi nangu la seen nguur bi mu nangoo seen nguur ñoom lu ñu mën a def mooy allié wu ci tubaab yi pour ñëw ànd ak moom attaqué ko loolu moo indi xeexu Samba Sadio Euh, pour récupérer waat seen nguur biñ ko récupérer itam euh, ñoom ñu toogaat ñoom itam dañu amaat jafe-jafe ak tubaab bi parce que tubaab bi booba xeexul ak ñoom pour jële fi euh, Cheikh Amadou waaye li muy xeex ak ñoom mooy dafay xeex ak ñoom pour jële leen fi ak jële fi Cheikh Amadou jële leen fi malheureusement amuñu woon lecture boobu xamuñu woon ne kii ñuy xeexal muy seen mbokk moom mi ñu waroon a jàppale ànd ak moom su ko defee dàq tubaab bi waaye dañoo dem ànd ak tubaab bi xeex ak seen mbokk éliminer ko mu tubaab bi wëlbatiku ñoom itam imposer leen ay loo am éliminer leen ñoom ñëpp loolu moo waral Albouri mujj dem doosoo waaye loolu moo waral Lat Joor itam mujj des ca deqale ginnaaw bi nga xamee ni Lat Joor sax jéem na allié wu ji fële ca Maba ginaaw bi nga xamee ni njëkk naa am problème ci Kajoor euh, dem na parce que première fois bi nga xamee ni que Majoojo euh, tubaab yi ñu ngi ko doon jàppale ba nga xam ne Lat Joor mujjoon na dem fële ci ci ci ci ci ci Saalum euh, fekk fa Amadou Cheikhou fekk Maba Jaxu Ba te defaat liggéey yu am solo ci digganteem ak Maba parce que la xewoon ca Pata loola Lat Joor daf ci joué rôle bu mag a mag a mag ak dëkk yu bari yoo xam ne xare yu bari yoo xam ne amoon na foofa récupérer nguur gi ca kawun ak feneen ak feneen ca feneen loola Lat Joor joué na ci rôle bu mag ci digganteem ak Maba bi nga xam ne ñëw nañ ba tafek sii nit la nga xam ne am na fa erreur stratégie la woon njuumte technique de guerre la boo xam ne amoon na xëy na Lat Joor am na lu mu proposé woon te defuñu ko loolaat indi na la indi jafe-jafe ba xëy na foofu suñ si duggee dafay gën a guddu loolu taxuñu jóg waaye li ñu tax a jóg rek mooy rôle bi nga xam ne Maba moomu itam joué na ko ci Saalum ba tasaare fa diine ba nga xam ne tey euh, foo tourné ci Saalum yaa nga fay gis ay daara di fa gis ay boroomi xam-xam yu mag di fa génne de ay jullit yu rëy ay daara yu mag génne fa tey mu nekk benn euh, benn euh, berceau boo xam ne ci berceau yi te taawu diine yi l'islam ci Sénégal la bokk muy Saalum comme ni nga xamee noonu lañ ko gisee ci euh, kokki waxoon naa ko ni ñu ko gisee ci ñoom rek noonu lañ ko gisee ci euh, cilla ndaramaan noonu lañ ko gisee ci yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo fi nekkoon daara yi maam Masamba Caam fële euh, daara yi ba ci daara yi mujj Amar Njaay Maadey ca Ndar ba ci daara yi nga xam ne sosaat nañ ko fi moo xam Seydi Hajji Malick la ca Njaarnde ci Tiwaawoon ak daara yi nga xam ne mooy daara yi Euh, euh, euh, yi amoon ci Mbàkke moo xam daara yi nga xam ne moom Maam Mor Anta Sali la wala bokk sax ña nga xam ne ñoo ko jiitu ñoom ñëpp daara yooyu nga xam ne sosoon nañ ko daara yooyu tey moo taxawal lu bari li fi nekk kon da ngay gis ne bi colon yi ñëwee itam waaw sëñ Babacar ñu ngi lay nuyu di la ziar di la di dellu si waat vraiment exposé bi moom je sérieusement parlé matal na léegi Babacar euh, xam naa li ñu mën a posé ci question comme trente minutes moom ñu profité ci mooy dañu gis ne nga wax fi ay jaar-jaar yu am solo mooy buur yi jaar-jaar yi nga xam mooy tubaab yi te ñu gis toujours rek daara dafay résister mais xam nga tubaab yi bi ñu fi daanalee ba ñu jógee si dafa am benn affaire bi am dañu si samp ñuy tuddee chef de canton mu nekk ñoo xamante ni ñoom ñoo jël relais buur yi mais ñoom ñoo gën a déggoo tubaab yi ñooñu tamit jàpp naa ne ñoom ak daara am na nu daara joué ci ñom am ci da tantu de ci ci fi siiw xam ne leen nga deg ñu leen di way euh ba leen sax même lolu mo am continuité ndax bari na ay avocat yu mag bari na ay président tribunal ci même famille yoy ci lañ joggé benen bi moy bëgg na xam deug deug deug deug rôle bi nga xam ne moom moo nekkoon ci ñooñu ci daara jooju ci fulla bobu ci fayda bobu ba ñëw ba suñu indépendance nga xam ne daara tay day gëna tek ay loxom nga xam ne daara dafa gën a góorgóorlu gën a am taxawaay taxawaay boobu nga xam ne daara ñëw na ba ci suñu indépendance te mu mel ni ci indépendance bi doomu daara yi am na lu ci dañ ko seen loxo mooy ñaareelu question bi daal après ñoom buur yi ñun ak chef de canton yi naka la daara doxee ñaareel bi ñu ba nga xam ne nag léegi war nañu ñëw ci indépendance ñu xamoon ci ay doomu daara ñoom lan moo nekkoon seen taxawaay ci wàllu indépendance boobu soo paree mën ngaa dugg ci question Euh, bi ko yi ñëwee ba nga xam ne not nañu réew mi ba nga xam ne jël nañu euh, réew mi complètement ba rey nañu ñoom Lat Joor euh, ci deqale ci mille huit cent quatre vingt ñu ngi ko rey le vingt octobre mille huit cent quatre vingt lu jiitu ñuy rey jarbaat ba nga xam ne moo doon dammeel yooyu jamono muy Samba Lawbe Fall ca Tiwaawan te Samba Lawbe li tax ñu rey ko bokk na ca la mu xeex ak Alburi fële ca em euh, xeex ba moom ak Albouri tey ñu tere woon ko mu bañ ba mu fa jógee ñu nekkoon na dédommagé loola mu waroon a jëli pour dédommagé ko loolu moo ko booleeg tubaab yi ba ñu mujj ko rey le 20 octobre 1886 fële ca Tiwaawoon ci gaaram ci Tiwaawoon euh, euh, loolu moo waral reyam waaye itam sëriñ si ginnaaw bi nga xamee ni que ceddo yi jóge nañ fi sëriñ si nga xam ne ñoo ñëwaat ñoom itam joué nañ rôle bu mag a mag a mag joué nañ rôle bu mag Euh, tubaab yi bi ñu ñëwee dañu fexee ñoom itam installé seen mbir teg seen diine teg seen école tëral seen i loi di fexe njàngale mu nga xam ne mooy njàngaleem diine ñu fexe ko fee jële maa ngi diine islam fexe ko fee jële waaye terewul mag ñi góorgóorlu luñ ba taxawal ay daara ci biir capital yi moo xam Ndar la moo xam Dakar la moo xam Tëngéej la moo xam euh, fépp ci Sénégal fexe nañ ba teg fa ay daara ak ci dëkk àll yi daara yooyu bari nañ lool bari nañ lool ci jandeer euh, suñ limee duñu matal ci kajoor ci bawol ci siin ak saalum euh, ci jolof euh, fépp koo dem doo dox benn gox diggante benn diggante su fekkoo fa ay daara malgré que conditions yi jafe woon na malgré ko dund bi metti woon na waaye fexe nañ ba sauvegarder loolu bi ñu ñëwee ba nga xam ni suñu maam yi mujjee ñëw itam ñëw nañu muy période bi nga xam ne moo jege colonialisa colonisation bi di jeex ñoom che suñu maam Sidi Hadj Malik bi fi jógee suñu maam Cheikh Ahmed Bamba suñu maam El Hadj Abdoulaye Niass ak doom ya muy Cheikh Cheikh Khalifa ak Cheikh Ibrahim wala ñi nga xam ne mooy waa Ceneba ginnaaw mam amari ndak fek mam tala fek cheikh ibrahim serigne alpha mohammedou ak ca kajoor daara ji ca kadior ak bi ci bawal ya ca gossas ak senen ak senen nga gis ne ñoñu itam diñu ñëwaat ngankaat diine ji jouwaat rôle bu maga mag ku melni serigne cheikh mbàkke gaynde fatma ku melni serigne cheikh mbàkke gaynde fatma ci taxaw ci daara ku melni cheikh abdul aziz al amin Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Abdoul Aziz Al Amine fédération des associations islamiques du Sénégal ak école yi nga xam ne bi ñuy moderniser indiwaat nañ ko looloo joué waat na rôle bu mag a mag a mag ci avant l'indépendance et après l'indépendance euh, kon euh, lii suñu ci gàttal suñ fi xoolee dañuy gis ne sëriñ si joué nañu rôle bu mag a mag ci conserver diine bi waaye conserver njàngum alquran ci réew mi waaye itam politique politique boo xam ne tax na tey li nu am ñu am ko te ñu am particularité boo xam ne wuute nañ ko ak ñu baree bari ci réew yi nu wër ak ci Afrique ba ci monde islamique particularité bi ñu am li ñu ko may ay nit ñu jàmbaare ñu xam stratégie ñu xam tëralin ñoo xam ne am nañ xam-xam te xam nañuy doxale ak nit ba mën a doxal li nga bëgg a doxal te nit ki du la mën a lor loolu résistance boobu itamit euh, ñëpp teg nañ suñ bët te moo indi résultat yi ñu am tey euh, waaw Seydi Ibrahim euh, laaj bu am solo la mooy sëriñ si amoon na rôle bu am solo buy joué ci fexe ba conserver xam-xam bi fexe ba conserver daara ji fexe ba conserver diine ji tubaab yi mënuñu woon anéantir mbir mi complètement bi nga xamee ne que ñu joué rôle bu mag ci indépendance mais tubaab yi dañu dañu def benn système mu système mu euh, weccoo boo xam ne moom lañ def mooy bi ñuy dem xam nañ ne dañuy dem euh, comme teel nañ xam ne dañuy dem colonisation mënatul continuer depuis bi ñu teree esclavage ci la tubaab yi xam ne colonisation dafay taxaw automatiquement il faut que mu taxaw Euh, parce que li fi jëlee lii moo fi jëlee leen parce que tubaab yi dañuy jàng jàngat bu sori duñ jàng pour tay kese foofu la tubaab yi di commencé préparer seen ndono ndono loolu ñu ko commencé préparer ci ba ñuy jëlee chef de canton yooyu nga wax euh, soo soo fàttalikoo ku mel ni que Sidiya Ndaté Yàlla ci ñi jiitu ci ñooñu la bokk waaye gis nga dafa daal di rëcc fitu ba gis nga fa mu mujj soo seetloo waa kër Demba Joor ci ñooñu lañu bokk waaye gis nga soo seetloo waa kër Alburi um, Buuna Alburi ak euh, njabootam ci ñooñu lañu bokk soo seetloo waa kër euh, Ilimaler Fall gis nga ak famille boobu ci ñooñu la bokk ba ci ñoom mbaaxaan ñooñu ñëpp dañ leen a jël euh, def leen ay njiit parce que loolu ñu ngi ko donne ci Alexandre le Grand Alexandre le Grand bi mu jëlee nguur Euh, yii dafa am luñ ko digaloon sëriñam daf ko diggaloon ni ko fexeel ba bul réew moo jël bul fa imposer say nit jëlal ña fa nekkoon nga falaat leen fa su leen fa falee dañuy jubóog yow te duñ jubóo ci seen biir système boobu la tubaab yi def biñ ñëwee soo gisee tubaab yi réussiraat après l'indépendance pour continuer rester loolu la dañu fexe ba jël ñi nga xam ne ñoo dirigé woon réew yi ci ay buur ñu jël seeni doom ku nekk ñu daggalay eh, sa gox jox ko say say ñafa dëkkoon séddale leen ko suñ leen ko séddalee ñoom seen biir ku nekk da ngay fexee am satisfaction ci tubaab yi te doo du too bàyyi xel sa moroom loolu indi na jafe-jafe bu rëy ba nga xam ne tubaab yi dañuy préparer seen dem loolu moo waral bi ñuy am indépendance tubaab yi euh, ñoo continuer yore réew loolu benn la ci parce que boo xoolee Babacar ci sa exposé da ñuy xamal ne daara yu njëkk ya ñoom formé nañ fi li ñuy tuddee ay ay ay njiitu réew parce que Fuuta yooyu du ndaw mais formé nañ fi tamit ay ay kat yi ay attekat kon ñoom euh, la ma doon wax mooy matière yi nga xam ne moom lañ doon jàngee démb ci daara ji mooy matière yi nga xam ne moom moo tolloo woon ci téye àddina ci man a téye nguur mais ci biir sa exposé nga waxaale ñu ci benn wax bu am solo. mooy que tubaab bi ni mu transformé ni mu transféré culture am andi ñu dèjà foofu dugal na fa li ñuy tuddee laïcité ndax révolution française dafa amoon benn char benn slogan mooy na ngeen jël euh, butitu buur bu mujj xojee ko doq labbe bi mujj kon nañu nañu rey ñi nga xam ne ñoom ñooy pouvoir temporel bi mooy ñi nekk ci nguur gi ak pouvoir statutaire bi ak ñi nekk ci sëriñ si ndax dañu gisoon ne ñoom diggante sëriñ si ak nguur gi ñoom ñoo leen doon complot leen exploiter ñoom ñi nga xam ñoom ñooy ñoom ñooy euh, ñoom ñooy li ëpp ci population yi donc ñoom motif yi leen taxoon ñoom ñu samp laïcité loolu existé wu ci suñu réew mais kon nan lañ fexe ba implanté ko fii parce que loolu ñoom ñun mosuñu woon am problème boobu diggante sëriñ si buur si mosuñu woon nekk di napp baa di di napp baa doole li yenn teg si sa tegg daal di folli te buur yi dañ daan teg ay kabi ci yi léegi ñoom ñu mën a jël seen culture boobu andiwuñu ko te ñu nag ñoom xam nga ne bokkuñu ndax booy jàngat cause yi tax révolution française am di nga xam ne ak cause ak yi ñu def ba ànd ci laïcité loolu tamit bëgg bëgg naa tamit loolu tamit mu bokk tamit ci yi nga xam ne da koy ton muy maanaam ñàkk tanasub boobu ñàkk seexaloo boobu muy ñoom seen environnement seen aada seen dund ak ñun ñoom te teewul malgré loolu fexe nañ ba impla ba ànd ci seen aada ak seen dund ci ñun loolu tamit beneen problème foofu itam sëriñ si joué waat nañ fa benn rôle bi ñu indee ñoom parce ñu ëpp ci ñooñu sëriñ si récupéré nañ leen dugal leen ci diine ji bi tubaab yi gisee loolu tubaab yi dañu defaat beneen dañu tëraliwaat beneen recours yi parce que dañu indi ñooñu dugal leen bi ñu leen indee dugal leen sëriñ si récupéré ñu bari ci ñooñu nga xam ne ñoo doon ceddo yi te sëriñ si jox leen nguur gi ñu doon na ko ci ñoom sëriñ si ñëw récupéré leen maanaam tubaab bi jox leen nguur gi ñu doon ci ñoom sëriñ si ñëw récupéré leen doo leen fàtte bu naal buri Mansour bu ne bari ci démb la euh, ñeneen ak ñeneen ñi nekkoon Baye Massamba mi nekkoon fële ca Kajoor ak euh, ñeneen ak ñeneen ili maneer Fall ci Jurbel ak ña fa jógee ak ñeneen ak ñeneen da ngay gis ne kon ñoom biñ préparé loolu sëriñ si biñ leen a wëraat ndomb récupéré waat ci ñooñu ñu baree bari biñ leen récupéré ñoom yamaatuñ foofu dañu demaat defawaat beneen dañu jëlewaat euh, ñeneen jàngalaat leen ci école boobu pour former waat mooy ñoom Blaise Diagne ñoom Ngalandou ñoom ba ci ñoom Lamine ba ci ñoom Senghor léegi ñooñu ñu jëliwaat leen jàngalaat leen defaat leen ay tubaab pour ñu dellu waat pour ñu mën leen a jox réew kon loolu bokk na ci li nga xam ne moo tax tubaab di continuer de rester mais toujours daara ji mi ngi continuer di créer ay recours moom itam di bloquer loolu di xool nu mu koy fexe ba naj ko ba nga xam ne li tubaab bi bëgg a am tubaab bi du ko mën a am cent pour cent waaw cheikh ibrahima waaw gis nga loolu laa wax dama ne la soo gisee stratégie bi ñu tëral bi ñuy indil la di ñuy indil école di ñu indil diine waxtu woowu ñoom ñu ngi dàq diine di dàq ñu ngi dàq diine seen dëkk ba pare indil ñu diine ñun kon am na diine ji ñu doon indil am na luñ ci jublu woon mooy fexe diine ji fi nekk mu am lu ko contrecarré euh, pour man ñu indil tey euh, fi indi ñu fi ñu nekk il fallait ñu fexe ba créer ba deuxième diine boo xam ne day opposé diine bi fi nekk pour que ñoom ñu mën a def diine boobu seen base ba liñ bëgg a tabax ñu mën koo tabax waaye itam fexe ba créer école boo xam ne ci lañuy ñuy ay tubaab yoo xam ne dañuy nekki tubaab euh, waaye dañuy su ko defee nga xam ne culture tubaab la ñuy def ci ñoom xalaatuñu tubaab mooy nekk ci ñoom gëm tubaab mooy nekk ci ñoom su ko defee ñooy war a remplacer leen suñ fi jógee su ko defee ñooñu dañuy nekk ay espèce gouverneur yoo xam ne dañ leen fiy toogal wax naa la ko ci ne diñ ko jéemee ci Euh, créé woon nañ benn école bu ñu tuddee euh, kii des otage école otages yi lañ ko tuddee woon biñ fa jógee ñu soppi ko tuddee ko euh, doomi doomi notable yi maanaam doomi buur yi fi nekkoon ñoom lañ jël dugal fa tuddee leen ko ñooñu ci la ñoom mbaaxaan ak ñooñu génne bi ñu fa demee ba loolu gis ne loolu jàllatul it ci lañu ñu formé ñeneen dugal leen mooy ñoom Galandou ñoom Blaise ñoom Lamine ñoom sengoor ak ñeneen ñeneen ak ñeneen su ko defee ñooñu ñu dikk leen ñooñu lañ leen préparé parce que xam nañ ne indépendance bi fokk mu am ñooñu lañ préparé pour dugal leen léegi bi ñu dugalee ñooñu xam nga ñooñu suñu ñëwee dañuy nekk ñenn ci ñun foofoot benn point la woon boo xam ne pour ñu mën a nax daara ji la pour que waa daara ji gis ne kat kii ma taseel maa ngi moom mu bokk julli ci jàkka ji kon du tubaab fekk booba idéologie bi nga xam ne moo nekk ci boppam muy idéologie bi nekk ci tubaab bi parce que la ko jàngal cosaanam la ko jàngal nàmpal na ko ba mu saf ko sàpp ba nga xam ne euh, lu mu mënti wax ak yow du tere ne tubaab la so loolu moo waral soo seetloo après l'indépendance ku solul costume da ngay jàpp ne solo yëre assemblée nationale bii tey euh, kenn daaw fa sol grand mbubb kenn amu foon droit sol xaftaan loolu bi dajee yàggul assemblée nationale am nañ indépendance lu yàgg te kenn amul droit sol fa xaftaan wala grand boubou kenn daaw fooxu wolof waxantuma laa pulaar waxantuma laa xalaat faa wax joolaa kenn amul woon droit dugg ci classe école bind ci tableau bismillahi rahmaani rahim kon loolu turaas la ndono la loo xam ne dañu ko fi bàyyiloon waaye ut ay nit ñoo xam ne ñoo yanu loolu pour ñu bàyyi ñu ko fi loo ay ñu daan voté dañuy fexe ba euh, député bi nga xam ne moo koy voté député boobu ab tubaab la tubaab lañ ko gëmloo suy wax sax su laanu su làkkul tubaab day jàpp ne waxul la waxagul dara yooyu yëpp dafa bokk ci instrument yi nga xam ne moom lañ jëfandikoo pour mën a taxawal liñ bëgg a taxawal looloo il faut ñu bàyyi ci xel te loolu nekkul système la système kenn du ko xeex Babacar ndaw vraiment amul kenn koo xam ne yaa ngi déglu lu ne di nga nangu ne Babacar maîtriser nga li ngay wax te xam nga ko yal la yàlla gën a sàmm gën laa aar Babacar dañuy gaawal question yi ñëw ci Daara actuellement tey Daara actuellement parce que yaakaar naa neexul ba neex mais déglu nga tey Daara joo xam ne yéem na doomu aadama yi bés bu nekk 3 millions koy dépensons di di di di maanaam di di consommer ci wàllu ceeb xaw ma 2 tonnes et en même temps di tabax waañ xamante ni àgg ay milliards. kon mais te daara jooju tey bu ñu xoolee am même temps ci enseignement bi gis nañ ñu ñu génne di am bac di dem bitim réew gis nañ fa lu bari mais ba léegi Babacar waa daara jotuñu seen wàll ci li nga xam ne ñoom ñoo ko moom waxuma sax ñoom ñoo ko ñoo ñoo ñoo gaayee ko bokk mais dañ koo moom parce que réew mi tey bu ñu jotee seen bopp réew mi tey bu fii ngor taxawee ñoom def nañ ci rôle bu rëy rëy mais ba léegi da ngay sentir que ne daara mënu fee jot boppam maanaam ala kulli xaal tubaab bi imposé wu na li mu bëggoon ba léegi moom mooy jàll même bu fekkee ay ndonoom rëcc nañu ko ci chef de canton yi dabuwaat na ko ci yeneen intellectuels yi ba tey boobu ba léegi gis nañu ne tey kenn xalaat ñu am réew mi war ko koo mën a yor ci tekki jàng daara donte nag nangu nañ ñi nga xam ñoom Gaynde Fatma ñoom Cheikh Yane si Almaktoum ñoom Mamour eh, ñoom sëñ Mamour Niass ba ci Ahmed Khalifa Niass ñoom ñëpp samp nañu ay parti nangu nañ ne presse bi ñoom Sidi Lamine taxaw nañ ñoom Moustapha Cissé ñëpp mais ba léegi teewul ñi fi tubaab bi li fi tubaab bi bëgg moom mooy am ba léegi taxul mu am benn impact loo jàpp na moo ko waral ba léegi daara mënagul a am njeexital ci ni réew mi di doxee loolu daal jaaxal na ma jaaxal na ma trop trop trop ma bëggoon loolu nga wax ni tam soo paree nga daal di may résumer parce que waxtu bi jot na ñu ngi ci quarante six nga résumer ma ci état yi fi jaar les gouvernants yi fi jaar ñoom ñëpp ban taxawaay la ñu am. ci daara ak ñoom lan la daara jëflanteeg ñoom ak ñoom lu ñu defal daara dalee ko ci euh, ci ni jëkk a nekk njiitu réew fii ñu toll tey jii seen diggante ak daara nan la demee bi état yi fi jaar yëpp incha allah te ba tey malgré yaa ngi wax euh, njàngale mi nga xam ne tey jii muy njàngale arab di nga gis ne ba tey d'accord d'accord am na sax ñu ci def ay jéego ba ne dañu xaw a reconnaître bac bi mais boo xoolee ñoom am na am na yeneen détails yu ci ci xaw a nekk même sax yemuñu foofu wax dëgg yàlla jël nañu direction état bi ci ñu jot xam bopp ñu bari dugal fay arabisant mais jël nañu aussi tamit ENA mi yaakaar naa tijji nañ ko xaw faa reconnaître yenn arabisant yi yooyu yëpp jéego la boo xamante ni ñëpp teg nañ ci bët mais encore une fois ba léegi ba léegi gisaguñu koo xamante ni tey tey tey war na aman am accès tey ci pouvoir bi di woote ci turu daara dégg naa sax kenn ku ne euh, barki de mu ne mu ne Abdoulaye Dieye woote woon na ci turu daara ab Abdoulaye Dieye du woon arabisant Abdoulaye Dieye ingénieur en hydraulique la nekkoon France doom ja ba mu ñëwee tamit loolu la continué mais dafa toll nag nit ki boo seetlee baax ak te lay ak te lay ne da ngaa woote ci turu daara mosul woote ci turu daara waaye yaxama dikkoom bu baax moom ci la sukkandikoon di woote man waxee foofu koo xam ne dafa jóg pour défendre programme mu daara jéem a wax. loolu fi mu toll ba léegi loolu lu ko tee mu am Babacar ñaareel bi tamit wax nañ ne budget réew mi quarante pour cent ci enseignement bi la jëm te man wax dëgg yàlla buñ ci sentiree daara tamit day na waar gisuñu ko ci muy dernière question bi donte temps bi xat na muy rencontre bi am ci jam ñaaji loolu ban njeexital la mën def ci daara ak loolu bu yàggee lan la mën ci daara ak tamit beneen phénomène bi am léegi mooy léegi xale yi ñu ngi gañ ay concours yi am yi lu baax la waaye ndax mënul am ci beneen wàll boo xam tamit gis nañ ko ci ci nit ñi tey fi ñu waroon a teg alquran ak ni ñu ko waroon a yëgee ba finalement dañuy mujj ni ñuy def rek ba gañe yooyu yëpp seen nga mën ñu ko ramasel ndax xam naa ne ñu ngi defee ci fukki minute ak benn ihsan jërëjëf macha allah cheikh ibrahim wax nga lu am solo muy daara ji ba léegi fan la taxaw ñu gis daaray kokki gis daara yi sëriñ Mor Mbaye Cissé gis yeneen daara yoo xam ne ñu ngi ci réew mi taxaw fi gis daara yeneen xam ci xelkom gis daara yi nga nekk fële ci euh, ci ci Porokhane gis daara yi nekk fu bari ci réew mi ñu gis rôle bu rëy rëy boo xam ne daara joué na ko ci réew mi ba ñuy dem bay tabax université ci boo xam ne islam ci turu l'islam nañ ko tabaxee kooku loolu su amee da gis ne avancement bu rëy am na mais li ngay jàngat foofu rek mooy système système rek ko mën a ray système système rek ko mën a ray te système bi ray système bële mi ngi dox bu baax a baax a baax baax te ku xam nu àdduna di doxee danga xam ne am na garab gu ñuy tuddee loro euh, ñu koy wax tobb garab googu du sax ci suuf ci garab ne moom lay sax waaye garab gu mu sax ci yow am nga jafe-jafe parce que tôt et la lekk loolu mooy euh, al njàngareem alquran ak diine l'islam képp ku mu sax itam pénc xamal ne ñàkk nga pénc ma dana ko récupérer foofu la système la ak l'islam système la système bii nag soo gisee Occident ragal ko mooy seul système boo xam ni euh, ñaata siècle mi ngi fi système bu dem fekk ko fi bu ñëw bàyyi bu buy dem bàyyi ko fi bu ñëw fekk ko fi buy dem bàyyi ko fi beneen ñëw fekk ko beneen dem bàyyi ko fi kon système boobu lii euh, xew mooma te nag tôt et dafay gën a taxaw ndax soo seetloo euh, depuis l'indépendance euh, li nu amoon matul dix euh, mi des années soixante dix ñëw nañ ba am vingt des ak années quatre vingt ñu ñëw ba am trente des années deux mille ñu ñëw ba am quarante actuellement ñu ngi yóotul cinquante kon fii ak vingt ans danañ egg quatre vingt nangam jëm cent kon loolu fokk mu am parce que mënul ñàkk su fekkee ne suñ borom dimbale nañ incha allah ñu continuer ci rythme bii ñuy doxee ak taxawaay bu dëgër yi li ñuy wax yépp ne mënul nekk day dem ba mën a nekk parce que système système rek koy kii waaye nag il faut que mu am unité booloo booloo il faut que mu am feeg teqalikoo nga am ñuy gën a néew doole jullit ñi énergie bi ñuy dépenser pour teqalikoo suñ ko dépenser pour booloo kon eh, lépp dana defaru Euh, waaw euh, am na solo euh, yi fi jaar yëpp ku état yi fi jaar yëpp ku nekk maanaam njiit yi fi jaar yëpp ku nekk lan nga seq ak daara suñu xoolee kii di Senghor moom moo fi jiitu comme président réew mi daara defal na ko nu ne ndax mun nga wax ne Senghor su fi faloo jëflante bu mu jëflante waa daara ji waa daara ji jàppale ko moo tax mu falu fi parce que ñoom boobu dañu xool ne réew la Euh, pour ñu am euh, déggoo ci suñu biir soxlawul ñuy soxla nitu diine wala leneen mais nañ fexe ba am état boo xam ne dana taxaw te ñu koy taawu nekk ay boroomi xam-xam parce que itam suñ ko joxee koo xam ne nitu diine la te amul man-man di itam day mujj yàqu loolu moo waral ñu nangu woon Senghor nekk président ñu ànd ak moom accompagner ko ba Senghor it am xel bàyyi ca ba bàyyi jotee Euh, jël Abdou Diouf bàyyi fi Abdou Diouf it ñëw yokku relation ak euh, daara lu ëpp li ko Senghor defoon parce que lu bari liñ doon tawee jamonoy Senghor bi Abdou Diouf ñëwee loolu wàññeeku na parce que ñu ngi fàttaliku des années quatre-vingt-quatre ci la ñu sos euh, soxna Mari Seyda Mariama Niass daaraam ji fii ñu gis ko te fa mu jóge xam nañ ko ca Sacré Cœur ba egsi fii ci bii ci Patte d'Oie yeneen yi ci des yépp ñu gis ko nga gis ne loolu rôle bu mag la ci Abdou Diouf joué taxaw ci itam ak yeneen daara yi nga xam ne sosuwaat nañ fi duñ fàtte daara yi école yi nga xam ne ñu ngi woon ci réew mi ak premier yenn kii yu bari yi nga xam ne enseignant yi nga xam ne dugg commencé wuñ leen dugal ci fonction publique ak yeneen ak yeneen yoo xam ne loolu yëpp ci nguuru Abdou Diouf am na ci laaj ci Senghor waaye li ci ëpp ci Abdou Diouf la gënoon bare yenn diplôme yi soo ko amoon ci réew mi mën a dem defi concours mën a dugg ci enseignement loolu ci jamono Abdou Diouf la Euh, Ablaye Wade bi mu ñëwee taxawaat beneen rôle taxaw rôle boo xam ne moom tudd tuddewul boppam tubaab mais dafa def boppam en tant que jullit en tant que gën a ubbeeku ci euh, këru diine yi gën a ubbeeku ci euh, diine moom itam joué na fi rôle bu mag a mag a mag ba tey Macky Sall itam mi ngi avancé defaat na ay pas yu am solo rawatina at yi ñu génn ku nekk gis na sëriñ daara yi ak yi nga xam ne taxawaay yi nga xam ne état bi taxaw na ko ci ak liñ ci def euh, looloo dañuy gis ne ay mbir la yoo xam ne ay war nañ ko mën a rafet rafetlu xam ne lii euh, suñu avancé gën a jëm kanam lépp lu ñu foogul ne mën na am mën na fi am ci daara ji mën na ko fi am li ci des na waa daara ji seen bopp ñoom ñooy ànd ak fulla gën a yokk seen fayda gën a yokk seen euh, jom gëna a yokk seen xool seeni maam fi ñu jaar bay fi fi ñu xam ne kon mbir mi àdduna la àdduna nag dafa am lu koy taxawal muy xëccoo xëccoo li kenn du maye dara àdduna amul dara luñ fiy maye àdduna li fi nekk lépp dañ koy xeex pour jot ci waxuñu xeexub gàddu jaasi nag di juuraan déedéet xeex boobu lan la xam-xam la ak xel xam-xam bu tegu ci xel mooy gañaloo nit ci àdduna lépp lu fi waaye am ci xam-xam akum xel mu sell nga koy amee xam yan stratégie yan tëralin ngay jaaral ba jot ci li nga war jot parce que fay droit la yaa moom réew mi quatre-vingt-quinze yow kon lépp loo fi amul ñàkk xam-xam ak ñàkk farlu ak ñàkk amit pexe stratégie moo la ko xañ ndax àdduna lépp lit la da bëre combat ba jot ci li nga war a jot loolu nag xam-xam a koy def am xel a koy def doxalin tëralin yu sell moo koy def kon euh, borom daara yi nitu daara yi nañ jóg ci loolu pour gën a euh, jëm ci xam-xam jëm ci xam ni ñuy doxale réew jëm ci xam ni ñuy tërale jëm ci ni ñuy xam ni ñuy politiquer parce que politique mënul ñàkk politique politicienne moo bon boo xam ne day ànd ak wax lu dul dëgg wor ak yeneen ak yeneen waaye nañ ko teg ci dëgg ak maandu ak xam-xam su ko defee liñ bëgg a am yépp danañ ko am waaw xam nga foofu Cheikh Ibrahim euh, mooy li may wax ne système xam nga système dafa am système bu fi nekk ba yàgg fi ba diju ba toog système boobu nag xëy déjji ko rek du yomb kenn du ko déjji sax soo ko déjjee dafay yàq loo xam ne doo ko mun defar loolu moo waral tey ba léegi may wax yow ni kenn mënul taxaw euh, woote ci turu daara pour jot ci réew mi euh, li ko nit mën a defee rek mooy recours rek nga mën a jaar euh, dafa am ci digg yoon wi genn garab wuñ fa samp garab boobu mënoo koo mbëkk mu daanu mënoo koo guddi mënoo koo gor looy def kon wëral garab gi soo wëree da nga jàll jéggi jàll ci beneen côté ba jaaraat ci yoon ma continuer dem sa yoon loolu rek nga mën a def loolu mooy système kon li tere loolu am dafa am système bu fi tubaab yi tëral système boobu moo baare nitu daara mën a ñëw taxaw ci turu daara woote pour jot ci réew mi munul nekk actuellement euh, mais ah euh, ñuy dem comme nii ñuy def pas à pas yëkkati tànk teg ci tànk fekk pakk nga jéggi fekk pakk nga contourner ko fekk pakk nga wër ko suñ ko dee def tôt et tard danañ mujj egg parce que soo delloo Euh, juróom fukki at ci ginnaaw wala juróom benn fukki at ci ginnaaw bi ñu am indépendance fii ñu toll soo ko waxoon nit ñi ñu ne dangay ngay gént da ngay gént ne loolu mënul nekk liñ lay wax kon tey egg nañu fii euh, loolu kon avancement la te avancement nag euh, xëccoo wax naa ko sànq xëccoo xëccoo loo jàpp da ngay téye loo jàpp rek téyel yootu leneen li nga jàpp téye yootu leneen su yàggee da nga am lu bari te foofu la ñu toll muy tëralin ak stratégie kon euh, loolu euh, nañ ci bàyyi xel xam ne euh, na daara ji bari boroomi xam-xam rek su daara ji baree boroomi xam-xam rek ci recours yooyu ñuy jaar danañ ci jaar ba jot ci lañ bëgg a jot te coow du jub bi ci des nga wax ko muy lu am solo itam muy xam naa Babacar fi nga war a tëjee wax ji te nga xam ne dinañ ko yorgal moom mooy est ce que ñun xaar ko ci mu ñuy jox moom moo war di am te parce loolu dañ ko seetlu même ko fi former sax parti politique sax direction bi du am arabisant lan mooy am mouvement des arabisants bu ko defee ñoom à chaque fois dafa mel ni que ñoom dañu gërëm di féete ginnaaw te dañu gërëm ñu naa leen tijjee leen ko ñaan dafa mel ne taxaw daal fëgg ci table bi di wax seen xalaat même ci seen arabisant yoo xam ne sax léegi dañuy bëgg sax di di di leen di leen di di tubaab tubaab lu en quelque wala boog di wane ne ñoom ay di wax baat yoo xam ne maîtriser wuñ ko maanaam sukkandiku ci daara xam-xamu daara ñu fexee jongante ak nga xamante ni tey jii xamu tubaab bi dama gis ne parce que tam li waroon moom mooy tey xam ko mun ko exposer boo ñeen leen nguur nii la ko imam Malik waxee nguur nii la ko Ibn Taymiya waxee nguur nii la ko parce ñun tamit bu fàttali dañu amoon ay bindkat yoo xam dañoo bind wàllu politique ko mel ne Maodo nii bind na ci lan ci ci ci nga xam ne bi ñuy wax nguur wax na ko xifsu diin wa dawla yu mel noonu wax ci nguur wax ci constitution wax ci lépp mais lu tax ñun njëgg boobu nga xam ne jàng nañ ko dafay dellu ci ne est-ce que en réalité ñi ñuy tuddee tamit ñu jàng tamit ci wàllu ji jàng ci wàllu xam-xam bi xam tamit bëri na tamit ñu jàng mais est-ce ñëpp xam nañ parce que li léeg nga seetaan télé fii parce que parti bi parti am ci déleen mais opposition mais au pouvoir ña fay wax ci wàllu diine bu ñu nga dal sa gémmiñ la ñuy wax du xam-xam la ñuy wax du xalaat la ñuy wax daanaka dafay xaw a doy waar bo moo xam ci kër yi ba boo xoolee seen kër yi dañ koy dem ba dañ koy ñaawlu mu donc ñu solu këru diine kër yi nga xam ne tey dañ koy jàngal dañ dañ leen ñiin ci wàllu diine ña fa fàqee yëpp dañ ci dañ ci parti yëpp daanaka li ëpp ci ñoom ay bêtises lañ yoon li ëpp bu ñu waxee dafay nekk lu doy waar loolu tamit dafa mel ne ñàkk a ñor ci wàllu xam wala ñàkk a ñor ci politique tam mu ngi ci arabisant yi te jàpp naa li ñu bëgg ñun bu ñu ko bëggee faw ñu am ak ñor ginnaaw bi ñu amee xam-xam loolu xam naa ci ngay tëjee parce que fi mu vingt deux heures jot na wax dëgg yàlla te xam naa ne vingt deux moom mënatuñ ko passé bu ko defee du ñàkk xaj na mën na am bu fekkee kilifa yi waxtaan ci biir ba gis ne war na am suite ndax tamit loolu dañuy bugg laa tijji foofu ko defee daal di tijjaal te xam ne gërëm nañ la sant nañ la bu ko defee al ihsan ñoo tëj buntu ba deneen yoon incha allah dëkk boobu ngeen di dégg vraiment dama koo daw waa daw ba son damay dem ba démb yu ci bi ñu sori nii nii laaj bi ma koy laaj du am enregistré du du du ma xam ci subaanaka toll maanaam dañoo ñëw ba tiim sama koñ comme ni ngeen ko xam ne ci africain ak sénégalais a loo di fi tëgg tëgg moo xam ne kenn xamul fa dema def ba génn yu bi moo tax naag Babacar mën nañu ñàkk a déggoo sax leen rek waaye dafa mel rek mooy loolu kon loolu ñu ngi koy jéggalu kon xam naa mbokk yi dañuy taxawandi fii parce que vingt deux heures jot na suñu bu tàggoo rek daal di taxawandi fii incha allah bi ci des nga wax ko ci muy lu am solo muy concours yi nga xam ni euh, xale yi ñu ngi koy jóg di concours alquran rawante ci jàng alquran Euh, ak lu mu mën a jeexital ndax ñi koy def def ko rek pour gagner concours bi rek pour gagner ay millions euh, wala déet euh, ma jàpp ne loolu lu baax la du tax ma ne lu baax la mooy dafay encourager nit ñi jëme leen ci ñu jàngi alxuraan te alxuraan man damay wax faral di wax ne tiir la soo solee lu weex soo ci bañee taq bul ko jege soo ci jegee rek di taq te soo ci taqee moom caaxaan du tu ko loolu nag lu mat a bàyyi xel la mooy euh, dafay encourager nit ñi pour ñu gën di bëgg alxuraan di encourager nit ñi pour ñuy mokkale alxuraan di encourager nit ñi pour ñuy jànge alxuraan di ko gëstu ji su boobaa fu muy mujj ñëppay mujj dem ci alxuraan ñëpp bàyyi lépp fekk ko su boobaa réew mi lañ soxla ñu am ko parce que loolu rek lañ soxla mooy bàyyi lépp dem ci alxuraan loolu rek lañ soxla te système boobu ñu koy def di gagné ay concours ñu ne gagné nañ ci mille million kee gagné na suba quarante millions kee vingt kee nangam kee gagné na dëkk sàngam gagné na ñu ñëw ñu kii ko ñu ne jullit ñi tasaare ko ñu wax ko tiitaroo ko su boobaa lu muy mujj ñëpp dañ koy tiitaroo bu jëkk làkk tubaab aw tiitar la woon bu jëkk ku dégg olof bu baax am nay jamono dégg olof bu baax gàcce la woon dangay gis koo xam ne sax day wax yow ne la man dégguma olof walla làkk ba mu làkk ba mu juddoo du ko nangoo dégg su demee tubaab lay làkk sol yëre wolof am na foo xam ne su ko defee dafay rusa dem tey ñépp a ngi sol seen i yëre cosaan yu sol caaya sol seen i grand boubou sol seen mbaxana teg euh, sol di wax làkk wolof yu leer naññ wala pulaar yu leer naññ wala séeréer yu leer naññ te duñ ci rus dara bu jëkk ñu daan wax dañ ko daan dañ daan complexé soo juumee ci tubaab ñu reetaani soo juumee ci salaak kenn du la reetaani lu tax complexé boobu décomplexé bii ñuy dugg suñ dee jàng alxuraan di ko mokkal daf ñuy yóbbu ci décomplexé bu jëkk ki doon jàng alxuraan dañ ko daan gis mu nekk nit ku tilim ku tax ku mel nen ni su ko defee ñu di ko reetaane kenn du ko ñee léegi loolu mi ngi commencé dañ euh, euh, balance bi mi ngi commencé équilibré wala lance bi di daanu ci beneen côté bi loolu nag lu baax la ci képp ko xam fan la nan la àdduna di doxee da ngay xam ne lu baax la te fa muy mujj mooy gagné marché bi gagné terrain bi loolu itam il faut ñu bàyyi ci xel ñu koy encouragé fexe ba ñu mokkal ren su déwénee na ñaaram mokkal ñu mokkal déwén déwén jéeg na ñettam mokkal ñu ko suñ ko dee def su yàggee réew mi yëpp ay mujj mokkal alxuraan ñu ko mokkale nag baax na luñ ci jubloot baax na tooyee taar dëgg mooy mujj parce que am na loo xam ne ku ko mos du ko ku ko sex doo ko yàbbi da nga koy tàqamtiku te alxuraan mooy li nga xam ne ku ko sex doo ko yàbbi da nga koy tàqamtiku kon nañ fexe ñëpp sax ko rek su yàggee rek mu daj dëkk bi su ko ñëpp defewul it dana ci am majorité bi danañ mujj jëfe ko ñu ngi jaajëfal bu baax a baax waaw Cheikh Ibrahim loolu dafa am loo xam ne yu mbokk yi ñu baax ñu waaye euh, dañu ko naxewoon li ñu naxe woon mooy dañu teg bool bi am ñu ñëw tifli ci bool bi pour ñu seexlu ko euh, biñ tiflee ci bool bi pour ñu seexlu ko ñu pare séddoo bool bi ñoom lekk ko léegi nag biñ demee ba ci biir ñi nga xam ne euh, ñoom day woon seexluwuñu ñoo demoon bokk ci bool ba mais ñooña amuñu capacité amuñu euh, ràññetle amuñu lu tax ñu mën a taxaw foofa ba am fa rôle bañ mën a jouer parce que ñi ko man nanguwuñu woon a dem parce dañu seexlu woon bool bi ñi ko man dañoo seexlu woon bool bi loolu moo waral problème bi nga gis nga xam ne ku ñëw ci ñoom du mën a wax dara luñ mën a wax du am benn capacité boo xam ne dana ko mën a génne bañ naw ko ci parce que ñi ko man ñi ko xam nanguwuñu woon a dem parce que dañoo seexlu bool bi mooy liñ ne politique dafa salté politique nit ku baax du ko def politique nangam bonal politique ba mu bon pour ñoom ñu aate moo ko ñoom kese su ko defee nit ñu baax ñi ñu ne leen doo leen dugg ci politique soo ci bëggee dugg sax nit ku baax di borom xam-xam ñu ne la bul ci dugg parce que du yëfu nit ku baax nga ragal daw taxaw su ko defee ñi ciy dugg benn duñu doon ñu set wala boog duñu doon ku maîtriser xam-xam yoo xam ne day tax xam li jëm ci état ci administration ci doxalin euh, ci politique nuñ ko war a defee ñi xam man duñ ci dem tey handicap boobu la daara ji am handicap boobu la daara ji am ba nga xam ne ñi xam mbir yi nanguwuñ ci dugg lii mooy li jafe-jafe boobu su ko defee phénomène boobu nag jàpp naa ne euh, dana dañ tuuti parce que système bi dès que muy gën di daanu beneen système bi gën di jóg dafay dem ba équilibre day am tolloo day am tolloo boobu na su amee daf ñuy permettre ñu mën a egg fenn fii complexe bi nga xam ne moo am ci ñenn ñi su borom xam-xam yi ñooy duñ complexé ñi complexé mooy ñi xamul foo fekk ku complexe dafa maîtriser wul li muy wax ki xamul li muy wax nag <coughs> il faut que mu complexe ki ñëw ci ay nit jàpp ne ñii ñoo ko raw il faut mu complexe loolu mooy jafe-jafe bi nga xam ne ñi nga gis ci daara yi ñu dugg ci politique dañ koy am parce que ñoom suñu ñëwee dañuy naw ki fa fekk ba jàpp ne moo leen raw su boobaa dañuy am euh, yu ñu yëg seen bopp ne dañoo tuuti motax ñuy def yenn njaaxum yi moo ñuy wax yenn njaaxum yi suñ leen laaje xamuñu ci mbir yi dara dañuy wax rek ci ciow du ci tek loolu jafe-jafe la bu ñu am mais bis bu borom xam-xam yi duggee ci terrain bi problème bi ñu réglé ko mais nag système la système bi rek système rek koy daaneel. sa Cheikh Babacar jërëjëf yal na yàlla fay la xam-xam bi leer na tegu na ci yoon set na sell na lu way deug deug gàtt gàtt xam-xam bu la dégloo dina xam na wax nga xam-xam. te li ngay wax lépp tegu na ci yoon ñun ñi contane nañu bu baax vraiment rëccu ñu li nga nekkoon premier soir bi muy premier tànneef bi ci euh émission bi parce que émission yi bu leen fàtte mu ngi tudd jaar jaaru daara depuis histoire ba léegi kon euh li nga nekk premier invité surprise bi vraiment ñun ñu ci am contane mais di ci gërëm tamit ki nga xam ne moom mooy xalifa euh, ak di ci gërëm ki nga muy alpha sall président mais di ci gërëm tamit ihsan ak ñi koy jàppale ndax ñoom vraiment ñu rek ci hasard dañoo ko dañoo constaté wu ci seen biir ci lu kenn fekkewul constaté wu ba lépp taxaw ñu doog ko teg sama loxo ne naa ko doxal donc li nga doon nekk choix bi daal xam naa ne loolu moom ah, newul lu newul daal lu hasard ñoom daal xam nañ li mu doon def te ñëpp kontaan nañ yal na yàlla fay la xam naa ne deuxième partie mën ta ñàkk xam naa ne samedi prochain foofu ñu àggali ko parce que dañoo ñëw ba ci benn point boo xam ne heure bi dab mooy tey tey arabisants yi ak politique bi daar ji tey ak politique bi moo xam opposition au pouvoir kon loolu nañ ko waajal samedi di ñëw mbokk yi salaamullahi aleykum wa rahmatullah yal yàlla jàmmal leen jàmmal ñu leen nuyu leen ziar kontaan nañ ixsaan jërëjëf kon émission bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziara di nuyu mbokk yëpp di leen jaajëfal yéen itam di leen ñaanal yàlla suñ borom defal leen jàmm defal ñu ko ñu ngi nuyu ñëpp di ziara ñëpp di jégglu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm lu fi leer suñu boroom la lu fi lëndëm suñu gàtt àlloo suñu ñàkk fasaaxa saaxala euh, di nuyu ñëpp di ziare ñëpp di ñaan borom bi lépp luñ fi wax rek yal na ko suñu boroom def mu nekk njariñ ci ñi koy déglu euh, def njariñ nekk njariñ itam ñun ñi nga xam ne ñoo koy wax ndax euh, lu baax ñëpp ko mën a jariñoo ñu ngi ziare ñëpp di jaajëfal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa